salaamualeykum madame Marième Faye Sall. aleykum salaam Seynabou. alors euh, ñu ngi lay remercier lu ñu recevoir tey sa kër ñu ngi toog fii ci cour bu yànji bi ngelaw lu neex di ñu ëpp ñu fas yeneen nag waxtaan ak yow ci quelques ponk jëmbale ko ci euh, fondation Servir le Sénégal fondation Servir le Sénégal nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci jëf yu baax yu rafet yu muy def jëmbale ko ci dimbale doomu aadama yeeg néew gi doole gi. dégg naa yenn saa yi da ngay dox sax taseeg nit mu di la remercier fekk yow sax fàtte nga la nga defoon dégg naa it am na ay nit yu nekk hôpital dañuy faju ba génn war a fay ñu leen fondation jaaroon na fi loolu nag muy jëf yu rafet du Sénégal yëpp rafetlu waaye itam dégg naa nag jamono yii moom fondation bi dafa am lu ko rax maanaam dafa am ay nit yoo xam ne dañuy mbubbawoo fondation beeg Marème Faye Sall di nax nit ñeek yooyu te fekk ne demewul noonu loolu nu mu demee waaw euh, maa ngi lay sant bu ci laaj bi ma laaj mais avant ma lay tontu bëggoon naa remercier euh, sénégalais yi ak sénégalaises yi d'ici et d'ailleurs c'est vrai que ba fii sama borom kër nekkee président ba léegi mu suma wax ak presse sénégalaise bi dama doon daw lu bëri parce que dama doon wax ni moom mooy président man awma pour di wax ak di waxaat mais au bout de huit ans gis naa ni am na ay leeral yu ma war a indi par rapport ak sama fondation par rapport ak sama doxilin ci sama fondation c'est vrai que am naa fondation depuis huit ans fondation bi aussi bu ñu remonté man bëgguma woon am fondation parce que gis naa li ñuy wax ci fondation yi ak problème yi fondation yi di am moo tax mosuma bëgg am fondation j'ai toujours fait du social dama doon bëgg di continuer sama social sans pour autant mettre en place fondation mais dañuy wax ni mënoo def yenn yi te doo am fondation fondation bi nag euh, c'est une fondation un peu atypique parce que fonctionnement am bokkul ak fonctionnement fondation yu bëri yu première daan voilà parce que dafa am man nu mu ko sentiree ni ma ko sentiree mooy dama jóg nii damay def social damay jóg ni lii xam ni eh, yàlla jagleel na ma ko dama ci profito pour jaamu si yàlla booy jaamu yàlla nag ci dara doo xaar dara ci nit te du ànd ak bruit yu bëri sax yuy feeñ ak yi ñuy feeñal parce que dafa am benn dama mës a santeeg benn femme bu nekk ci benn organisme international mun ma yow kenn xamul looy def sa jëkkër a ngi nekk fii président yaa ngi am fondation mais xamuñu exactement looy def si boobaa ba mu ba ma waxee loolu ba ma ñëwee ak ñi may liggéeyal man leen de temps en temps yi ñuy def ñu ciy feeñal tuuti mais génnewu ma lépp lu may def ci fondation bi tey bu ñu ko doon xayma ak di ko wax duñ fi jóg parce que loolu damay jàpp ni sama diggante ak sama borom la la preuve fondation bi du benn nit c'est vrai que am na vice-président c'est c'est bien structuré mais fondation bi ñi ma ciy yónni ñi may doxal du benn nit kii dama koy yónni lii kii ma yónni ko lale kee ma yónni ko lale parce que bëgguma ñu xam en réalité li may def ci lu ci nit ñi lan la ndax sutura parce que am na ñu nga xam ne ci sutura nga mën defanteeg ñoom fan yi aussi ñoo ngi dégg lu bëri yu ñuy tuumaal ci fondation bi man dama mës wax ni fondation bi du bind kenn du gis fu fondation bi bindee demande quoi que ce soit mësuma ko nangu duma ko def lu ma soxla ci fondation bi sama borom kër mi ngi ma ci jàppale mi ngi ma siy jàppale bu malade yi bëree mi ngi ci dugal loxoom bu ma soxlaa lu ma mën a soxla moom ma ngi ci jàppale am na nag ay quelques bonnes volontés yu nga xam ni dinañ ma jàppale ci ceeb ci dëwliñ ci suukar am na mais lu ci ëpp li may def lu bëri sama borom kër moo si dugal loxo. bonne volonté yooyu fii rek la ñu nekk wala am na ñuy jóge bitim réew ak yooyu di ci dugal seen loxo. ñi jóge bitim réew dañ leen di ragal parce que ku mel na vice président bi di Alioune Fall boo ñëwee ni que dama bëgg gis première dame nga nekk homme d'affaires wala nga nekk yaa xam loo doon boo nee dama bëgg gis. dama bëgg jàppale fondation bi mais dama bëgg gis première dame moom day bañ parce que damay bañ ëllëg ñu ni homme d'affaires bi kat ñëw na fii wala kii ñëw na fi gis na première dame bi wala nang loolu lañuy ñuy éviter moo tax ñi ci ëpp fii la ñu nekk ci réew mi Sénégal yii lañ nekk des fois ma jékki-jékki ñu woo ma ajaa ñoo ngi lay yónnee ceeb diwlin suukar te ñëpp ñëpp te ku ko ci yónnee aussi di nga xam fu muy delluwaat fu ñu koy defaat daal waaw yow dangay xaar ba am soxla rek sollicité nit ñi wala dafa am ay fonds yoo xam ne ak ay jumtuwaay yoo xam ne da nga ko teg déjà en place di xaar. man du ma sollicité kenn duma ma ko def waaw damay bu ma nit ñi lu ñu bëgg besoin yu nit ñi di ma demander parce que fondation bi am na un jour sax def na ci benn reportage je dañuy dañuy recevoir demande yu bëri léegi sax dama focaliser wu si maladie xeebaluma kenn soxlaam mais léegi. ci maladie lay gën a dem parce que maladie ñoo gën a bëri am na yenn affaire moom duma ma si dugg des fois ñu bind ay affaire ay nangam ak nangam du ma dugg sax duma ma xebal kenn nag affaire am mais du ma si dugg lu ma xam daal mooy man damay focaliser wu ci maladie te bañ trafic d'influence moo tax ñi ëpp chance que seen affaire ñu régle ko mooy ñiy yóbbu directement ci fondation bi c'est ouvert guddi bëccëg bu ku dem duñ la delloo sa leetre duñ la delloo sa a enveloppe dinañ ko jël te dinaa si jot. parce que bëgg ndimbal daal foog nga bind yóbbu ko ci fondation bi da nga yóbbu ci fondation bi parce que bëgguma ñu jaar ci nit. moo tax bu ma déggee ñu ni arnaqué nañu kii jël nañu kii xaalisam daf daf may jaaxal parce que nit fii na bu fii Sénégal nit mënu indi ci man loolu depuis na début dama ko bañ bëgguma ku ku la ni mën naa la ji wutal audience ci Marème Faye sàll dalay wax lu la neex dalay nax dina ci dëkk bi laa dëkk. fii laa yaroo fii laa juddoo am naa ay xarit am na ay àndandoo am na ay lépp mais tout toutefois ku am looy soxla ci man fondation bi toujours nit a nga fa boo joxee sa lettre dinañ ko jot. fondation fan la nekk sax pour ku bëgg a dem foofu fondation bi fondation bi yoo xam fondation bi. <laughs> fondation bi mi ngi tax ak présidence. ah ok waaw foofu laa bëggoon na dem sànq sax foo gën ne foofu la. waaw ah, fondation bi mi ngi wetu présidence foofu la nekk. est-ce que ku bind lettre am moom euh, amul ku ñu ci mos gàntu. non soxla yëpp ngeen di faj. wala dina am ne du du am. soxla yëpp yàllaa ko hmm. li ñu mën daal li may def. Hmm. maa ngi def sama kettu laay di jàppale doomu aadama yi seetuma ci kii seetuma ci kala bëgguma sax ku ma remercier yàlla xam nag hmm. lu may def rek sunu borom si laay jiital. bëgguma sax ku wax merci lettre de remerciement du ko jël xam nga du ma si xaar dara yàlla rek beneen affaire bi mooy euh, fondation bi ku fa ñëw heure boo ñëwee boo déposé sa lettre danañ ko jël seulement ci maladie laa focaliser wu parce que maladie dafa bëri taxul nag ma ma xeebal kenn soxlaam xeebaluma ma kenn soxla mais jamono yii ci maladie laa gën a nekk moo tax des fois ñenn ñi du ñu am yenn réponse yi mais ku ci am indi kayitu feebar wala ordonnance di nga am sama réponse yan genre soxla lañ lay faral di poser. ah loolu seen ay affaire seen ay soxla bopp rek soxla nit ñi soxla doomu aadama yi rek soxla jamono yi. Hmm. lu nekk lañ lay wax moom. Hmm. mais soxla doomu aadama yi rek ñëw ne par exemple man de aw ma kër fu ma dëkk wala wala du fas. genre affaire yooyu doo ko toppatoo. kër ak otoog yëpp dañ la koy wax. Ah. mais comme j'ai dit doo xebal kenn soxlaa soxlaam ku la wax di nga déglu di nga loo si mën a apporter réponse nga apporter si mais li may gën a def daal mooy faj doomu aadama yi néew gi doole ak néew bu doole am na temps aussi ma defan programme rama programme bi sama maam laa ko tuddee rama programme pour le assistances pour les vieilles personnes la ba léegi maa ngi koy def damay commander ay chaise ay affaire yu mag yi di soxla yëpp parce que jàpp naa ni war nañu sunu mag ñi war nañ leen gën a bàyyi xel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 bëgg nañ ma jàppale yaakaar nañu bu ñu ko defee dañ ma ne dina ma neex mais li mu yàq bëri na aussi parce que ay nit a ngi ci lor ay doomu nit ay jàmbur te du loolu ñu doon moo taxoon mu jóg nañu j'ai demandé à que ñu arrêté lépp et puis na ñëpp xam ne ma nekkuma ci Facebook binduma Facebook awma compte Facebook du ma tweeter du ma def yooyu yëpp duma ko def loolu ma yooyu mooy xew nag léegi. waaw ah, man bokk man man damaa old fashion nekkuma si loolu. waaw actuel loolu nag. non non je ah. suis pas vraiment dans ça. <laughs> voilà ba léegi yaay naan ñu gaaw ñu gaaw balaa makki di ñoo daf lay perturbé. Ah, par exemple nu mu lay perturbé nag. non daf may perturbé nag. ah ci naka. <laughs> je réponds pas à la provocation.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 nit ñi waruñ jàpp loolu boo añee ak président boo añee ak première dame loolu et alors de façon kenn si ñoom kenn kenn nit mënu la indi ci man mënu la wutal audience si man parce que nangulu ma ko kenn nangulu ma nee naa la même au niveau de la fondation ku ku fay liggéeye ku ñu jël papier jox la pour nga dugal ko bu ma ko yëgee dama koy dindi pour bañ rek nit ñi di def de d'influence man damay dem ci nit ñi damay dem ci kër mën naa fa añee mën naa fa reere mën naa fa toog xam ça n'a rien à voir ak l'État wala yeneen wala leneen ku la wax ni aussi mën naa la wax première dame jox ma xaalis ma yóbbu la fële ña wutal ay passeport diplomatique man nekkuma si loolu kuñ ko wax aussi dañ lay nax wutaluma kenn passeport diplomatique des fois dinaa romb nit mun ma madame dama feebar waxal président mu dimbali ma ci passeport mu dem ma mun naa ko soumettre président mais ku la wax ni mën naa la wax première dame mu wutal la passeport mun naa la waxal première dame mu def lii wala mu def lee dañuy wax lu leen neex.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 bu ma génnee nit ñi ñëw jox ma ay këyit léegi mënatuma jël këyit ndax mbas bi mënatuma ko def. mais sax sa sa génn. waaw damay wàññi génn parce que. ngeen ñoo mën a war a joxe exemple. mais da ngay affaire. en tëj bi dafa métti da ngay namb yenn saa yi nga tàmmoon avant yooyu di génn di jël air wala genre. affaire question génn air damay bëgg di def comme yow ni ngay def boo xëyee bu xam ne da liggéey man liggéey ma boo xëyee da ngay dem ci dëkk dem ci marché yi. li hmm. jënd sama bopp li jënd sama kër. waaw ah, maa ngi yow yemuñu nag. ndax la ah man personne anonyme laa rek presque. man fu ma génne du ñu ne ma nga ne la topp ma voilà man daal hmm. j'essaie de mener une vie normale dama ko wax depuis le début maa ngi koy wax maa ngi damay essayer c'est vrai que moo mari président de la publique loolu yëpp dëgg la alhamdulilah rabbil alamin mais man personnellement j'essaie de ne une vie normal di dox sa di dox li ma war a dox di dem fi ma war a dem di dem ci xew yi di dem ci tuur yi di dem ci nit ñi. kon léegi su ma amoon xew bu ma la invité di nga ñëw. ah waaw. Hmm.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 moo tax du ma jéem a bu ma demee fenn je me la damay nekk ci nit ñi jaxasoo nit ñi du question wàccee sa bopp sax parce que nit ñi dañuy foog ne yaa ko da ngay def dara alors que c'est moi c'est c'est ma personne non sama sama sama nature la daf créer ambiance kaf ak nit ñi réew ak nit ñi nekk ak nit ñi jàmm après nga du tere dara ji bi la yàlla jox booy dem nga du tax mu wàññi su mm, dara voilà doo gêner nit ñi doo créer atmosphère bu nga xam ne ku nekk danaan kii su bokkul ma la nit ñi di la rëbb yooyu non non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 di la Seynabou ci euh, yow tam si ñëw bi di wax rek ni encore une fois toog fii di wax sax du lu ma gënal mais il faut que comme wax ji dafay bëri autour de ma personne ñi dañuy wax lee des fois sax dama naan est-ce que amul beneen nit bu ñuy wax parce que tellement daf may jaaxal tellement daf may jaaxal ba je me pose des questions je mais ñii man la ñuy waxal wala lan parce que fa ñuy wax ak la ñuy wax yi doo ko fekkee doo ko yëg doo ko doo du sax nekk si yow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 man ma dajeek yow nga jox ma sa yëf sa këyit wala nga wax ak man moo gën a yomb nit ni la dinaa ko gis suba wala dinaa dem ci këram parce que man tëjuwuma damay dem ci nit ñi damay sol sama dàll damay seeti samay xarit damay dem sama kër ay xarit damay invité sama kër nit ñi dañuy ñëw sama kër lu ma leen waxulul sama bopp man nii wala damu leen ci fondation bi ngeen jël seen këyit yóbbu ko ci fondation bi leneen lu leen nit di wax da leen di nax duma ko nangul kenn kenn kenn duma ko nangul kenn